bu la neexee nga rocceeku nga dem ak sa bopp ah pour man daal am na si plein droit. bettuñu parce que amoon na ay signes déjà yu doon yu doon wane wu que ni doon dem juste pour pour pour pour se faire ou bien bon pour ut mais on savait nettement que ni euh, Bougane du ànd ak euh, ay Khalifa Sall ak ay Sonko di topp seen ginnaaw parce que moom dafa bëgg nekk tout le temps au devant de la scène. et raison yi nga xamante aussi évoqué na pour pour wax ni moom Euh, dañuy wax tout le temps ñoom seen biir kan yi benn objectif lañu am ils ont la même cible mooy mag Sall léegi bu ñu demee ba si biir ñoom ñëpp ñu coaliser wu boole seen ay doole ne dañu bëgg dem si élection locale yi pour gagner le maximum de commune après peut-être que pour de questions de couleur pour des questions de tour tax moom bëgg retirer wu uniquement dafay mel ni peut-être que moom dafay bëgg tout le temps ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy boolee si si instance yi nga xamante ne ñooy décider. alors que affaire bi warul demee noonu am na ñoo xamante ne ñoom ñoo ko fondé ñoom ñoo am xalaat bi muy Ousmane Sonko ak Khalifa ñu waxtaan peut-être que convaincre les autres Bougane du moom rek moo fa nekk. y a des Cheikh Bamba Dièye am na aussi y a je crois Girassi am na euh, Jamil aussi sëñ Jamil bi am na yeneen membres yoo xamante ne ñoo jiitu Bougane ci politique ñoo ko fi gën a yàgg ñu ngi sëb expérience et pourtant accepté nañu boole seen doole ànd ak Sonko ak Khalifa ñu mobiliser wu pour euh, contrecarrer Macky Sall ci local yi nga xamante ne jëm nañ ci dañ doon xaar peut-être que moom aussi mu def la même chose ñi nga xamante ne mooy que mu raadu si ginnaaw ñooñu ñu coaliser boole seen doole au moins pour local ñu mën a am dara mais ni nga xamante ni doxee na ko euh, moom mooy nekk le grand perdant d'autant plus que Bougane man xaw base politique ñun xamuñu fenn foo xamante mën nañu wax que ni mën na fa dem pour gagner je crois kër góor gu mu nekk sax mënu fa gagner parce Euh, et moom li nga xamante ni moom mu ngi koy contre di ko évoqué que moom moo tax muy muy mu génn coalition bi moom gis nañu da ko def ci coalition parce que formé une coalition qui s'appelle euh, la coalition gëm sa bopp composé ko ak je crois douze partis politiques ay mouvement ak ay personnalités politiques mais coalition bi gëm sa bopp la tudd pourquoi il n'a pas cherché un autre nom bokk la gëm sa bopp pour wax que ni moom démocrate la lan moo tax il n'a pas changé les couleurs sa bopp kon moom li nga xamante ni moom mu ngi koy bañal ñële moom ñeneen nagul nañ ko ko kon je crois que ni euh, dafa yomb trop mu génn coalition bi di justifier que ne affaire de couleur la ak yeneen moom li koy dimbali politiquement parce que fi mu teg boppam àggu fi Bougane dafa jàpp ni politique xaalis la ça veut dire que financièrement il est il est am na xaalis que moom peut-être bon euh, warul mën a comparer warul mën a peut-être que. toog ay Sonko di ko jiite wala ay Khalifa alors que c'est pas le cas gars yi ko expérience politique ñoo ko ëpp mbooloo ñoo ko ëpp base politique ñoo ko gën a xam lan mooy politique. communication sax des fois da ngay tas voilà da ngay tas Bougane des fois man bon très dama ko nawoon dama ko doon suivre. mais je me à un moment donné bon je me suis de de de de de personne quoi parce que Bougane bi nga xamante ni moom laa foogoon ak idéologie bi mu doon développé ak finalement fu muy mujjee j'ai vu que rek moo ko soxal mooy sama bopp. te bu ñu waxantee dëgg rek Bougane def fi lu extraordinaire bu bu amee tour présentement média yi mu am la RCN la am La Tribune Zik FM ainsi de suite mais def fi lu kenn deful quoi. pour man daal affaire couleur wala affaire turu coalition warul mën a nekk loo xam te ne si moo leen di war a séparer bu doon peut dafa wax ni dafa jubóowul ak ñoom si ay point de vue maanaam nan lañ ko mën a waxee maanaam idéologique maanaam moom nee na li leen li ko tax a jug mooy pour jëlee fi. Macky Sall te ñoom ñëpp même objectif la ñu donc ay couleur moom pour man ay détails ay couleur kii tamit ay détails la peut-être moo xam ay raisons daal mais man pour man loolu c'est très élémentaire pour quitter quoi. waaw man de li ci sama xalaat bon man daal affaire couleur de moom xëy na moom couleur bi gis ci boppam moo tax moom mu rocceeku mais manoom sama xalaat moom bugaan moom. ni ma gisee daal muy di doxalee moom doy na ma nag doy na ma moom mais mbirum couleur moom xëy na loolu gis si boppam moo tax mu retiré wu mais man Bougane moom doy na ma te gis naa ni muy doxalee ak jëfam nekk na ma daa ko xam ne bon doy na ma man ci réew mi man. ñoom ñaar ñoom ñoo ko àndandoo woon sos ci loolu mais bu dee ba ci biir rocceeku moom xëy na moom am na looloo xam ne doyu ko ci mu rocceeku man ci sama man gis-gis. noonu laa ko mën kii. ah Bougane li mu def moom la ngal parce que dafa am ngëm gëm-gëmam ñeneen tamit aussi am seen gëm-gëmam parce que nit booy def da ngay def lu la doy booy ànd ak da ngay ànd ak lu la doy peut-être gis na moom si grand grande coalition bi gisul lu ko doy aussi tamit am na droit retirer kooku moom la engagé dañ koy nangu di mu def dañ koy nangu ah man da nangu naag xaw ma na keneen. Ah, xam nga waxtaan bi ñoom ñaar ñaar côté yëpp aussi tamit. est-ce que waxtaan bi Bougane tàmbali nag ak ñoom ba pare c'est aussi tamit bu ko Bougane tàmbali est-ce que ñeneen nangul nañ ko ko parce que aussi tamit Bougane dafa am ay ay contexte yu muy demee moom waaw léegi nag le problème en nekk mënoo xam nag luy ñuul ci biir loolu nag Bougane moo ci mën a leeral ak ñële mais aussi tamit Bougane li mu def man dama koy nangul ah, loolu moom la engagé dama koy nangul parce que jëlee fii Macky Sall moo leen tax a jógee aussi tamit man jàpp naa ni coalition bi déjà ñoom rek bu ñu demee ba rassemblé wu pour toog wax euh, am nañ bu am na lu tax euh, ñu ñu ñu ñu jël décision boobu noonu mais tey Bougane bu demee ba euh, jël propre décision am génn ci bon certes moom it am na lu ko lu waral tax mu génn mais tamit ak lépp lu mun mënti doon yaakaar naa ne objectif moo ko tax a dugg ci coalition bi waaw te yaakaar naa ne bu si génn. lu gën a ñor euh, objectif moo war a gën a tax mu génn si mais pas ay pour comme man li ma dégg affaire de couleur waaw affaire de couleur parce que euh, mbooloo mooy doole ko waaw man daal loolu laa gis te jàpp naa ne même bu si génnee ak leneen lu mu munti sóob euh, ñee buñ mànkoowee ñee ñoo ko fay ëpp doole. voilà ñu gis bëggaan nekk ténor nekk koo xamante ne mënut a ñàkk ci société bi mënut a ñàkk ci wàllum politique mu génn mu quitté ci li nga xamante ne mooy coalition bi. est-ce que loolu noonu du impacter grande coalition maanaam ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo bàyyi Bougane est-ce que loolu du leen impacter. donc euh, ñu ko bàyyi tamit ah, peut-être euh, puisque tamit ñoom seen matière de politique man xam nga politique moom franchement man maîtriser moo ko tellement mais man moom bu Bougane franchement ku may suivre la puisque tamit dafa nekk jeune boo xam ne dafa nekk Sénégal yàlla dimbali ko mu am moyen mu créer emploi kon kooku man chaque jour dama koy dama koy dama koy encourager quoi. parce que am na ñoo xam ne par exemple tey yor nañ alal comme moom mais tey li mu investir Sénégal peut ñoo ñu defuñu ko ñoo ñu ngi dund seen bon seen vie personnelle mais moom bien vrai que créer na emploi pour dimbali jeunes su Sénégal kooku man du ma am benn kii bu ma koy citer quoi vraiment. non gisuma impact gisuma impact d' accord ma aussi que ni Bougane ténor la Bougane ténor mooy que ni nga d' ni Bougane tey bu demoon Saint-Louis dafay gagné wala Bougane tey bu posé woon dafay gagné. mais Bougane fan la mën a gagné présentement gisuma ko fan la a gagné amul fenn tey Sonko mën nga ne à Ziguinchor ak 70 pour cent mën na gagné foofu noonu Khalifa tey bu néewee à Dakar à mën na fi gagné et que ko gagné ñeneen nax la même chose mais Bougane yow bi journal yow bi mooy posé question bi xam nga ni Bougane mënul gagné fenn ban mooy base politique Bougane xamuñu ko Bougane musul élection Bougane eh, doo xaalisam la yore ay moyens la yore ak après bon def ay médiatisation fexe ba nga xamante ni na tur mais loo xamante ni Bougane posé acte politique

il faut nga wane dara lu wane mën a tax ñu jox suñu réew aussi ñun gis ñu expérience bu buggaan am gis ñu posture bu buggaan am gis ñu portefeuille bu riche bu buggaan am boo war a mën a tax ñun ñun ñun peut-être que ñun buggaan jeune bi yëpp dañoo ranger ginnaawam au contraire gis nañ muy imiter Ousmane Sonko peut-être léegi gis nañu peut-être que dafay def ay déclaration bon tout le temps mu ngi mu ngi def ay sorties et autant ça ne se passait pas comme ça dañ ko si encouragé nag à ce bi muy muy muy muy comment dirais-je muy muy xeex ndax jeunesse bi mais nag da koy nangu def. ci mu ànd ak ñi nga xamante ni dañuy bokk ak moom xeex boobu noonu muy les Ousmane Sonko euh, les Khalifa Sall et mais bu bëggee dem moom nii rek day sonal boo xam am dara. xam nga ténor la. Bougane mosul bon sama point de amul benn mosul dem benn élection c'est vrai que am na média am na rajo am na tele ñu ngi koy suivre mais est-ce que loolu tamit day impacter si parce que politique bi ak loolu ça n'a rien parce que gisoon nañ fi. ñoo xam te si amoon nañ benn benn kii comme par exemple bu ñu jëree le cas de syndicaliste boobu Mademba Sock xam nga nekkoon na fi candidat élection présidentielle parce que boobu amoon na kiiwu nit ñu sympathie nit mais boobu cause bi mu doon defandre cause bi mu doon defandre ci la amee woon sympathie nit ñi mais pas pour nekk président est-ce que tamit Bougane nekkul ni télé bi ak soutien sociale bi muy defa tout ça sympathie boobu la nit ñi am ci moom ak changer dëkk kooku c'est autre chose. donc tey boo doon conseiller Bougane lan nga koy wax. Euh, je conseil bi moom waroon na ko xamal boppam déjà mooy que ne li mu décidé woon parce que Bougane bala muy décider pour dem ci coalition bi déjà formé na sa propre coalition. formé na coalition gëm sa bopp génn def benn déclaration wax carrément bon présente ay nitam quoi pour wan nit ñi que pour leurrer nit ñi que fii ñi fi am doole xam nañ leen ñi nga xamante ne am nañ base politique am nañu mboole xam nañu leen li gën si moom man tey su ma ko doon jox conseil mooy que ni mu dellu si coalition Yewwi Askan Wi ànd ak ñoom liggéey bu ñu demee ba présidentielle bu ñu liggéeyee ba nga xamante ne gagné nañ le maximum de localité euh, euh, au Sénégal bu ñu demee ba présidentielle bu mën na mën na mën na postuler na postuler après mu mu mu nekk mu jéem a mu briguer bu fekkee ni que euh, éligible nañu élire mu nekk président bu fekkee ni que sénégalais yi na ko programme am ak tamit son comportement mais pour le moment nii yoon bi nga xamante ne jël na ko sànni lu mel ni nulle paar dafay perte temps am dafay perte xaalisam te jeunesse bi joxuñu ko bopp laa am c'est clair nit ñi dofuñu ko en fait. waaw Bougane nag li ñuy xaar ci moom bëri na trop ndax moom moom xam na moom li koy xaar ci réew mi xam na ko moom bu baax moom moom moo la ko gën a xam moom. li lim la ci mën a daal wax ma li ma xam moom ci cadre daal politique moom laa la mën a wax ndax mosuma koo gis mosuma toog ak moom waaye daal li ma xam ci cadre politique. doy na ma man waaw dooy na ma daal moom pour ñu jëm ci élection yi moom. nit ku ne si sa jëfin sa kàddu ak sa waxin ak sa jëfin lan la mën a rek jàppe rek mais du cadre ni mësul dem ci élection rek kon moom wartu dugg ci ci kii politique du loolu man mi sax su ma ki amoon moyen sax damay di kii dugg ci politique. sama opinion euh, dama koy wax ni ka.